Ahmed Khalifa Niass suñu lay siyaare gannaaw bi nga bindee sa communiqué. waaw ñun contacté woon nañ Bouba Ndour. waaw mu wax ne yow kilifa nga te ku la jox cër la. Mm. te tamit yéen du leen mës a censuré biir TFM. te tamit mm. saa su ne ay buntam ubbeeku na pour yow. Mm. léegi nag euh, gannaaw bi nga déggee loolu yi tamit. ndax si diggante bi am nga si explication si émission bi nga fa defoon wala boog ndax dangay euh, ban position li ngay adopté. non mënaguma jël benn position ndax ñoom euh, émission bi tere terewuñ terewuñ ko. Mhm. waaw buñ ko tegee nag ci laay door a xam lan laay wax. Ah, d' donc teguñ ko woon. ñoom de ñu pare nañu pour teg ko ñun ñu déglu bañ teg ko. Mhm. Mm. mais Aïssatou Diop Fall mhm. waaw waaw demal dama Aïssatou. moom mooy tour moom mooy animé émission bi. non non déggoo Ah, en tout cas en tout cas léegi comme euh, TFM ñoom seetal nañ seen bopp. Mhm. kon xëy na accusation bi moom ngay jublu si ay ah, logiquement. parce que dañuy wax ne burul moom moom nee na ñoom la ñoom weddi nañ ko. moom mhm. wax na man wax naa ne euh, communiqué wax na nee na TFM ñoo ko ñoo ko décalé. te laajuñ ko ci waxuñ ko ci te itam kenn expliqué wul téléspectateurs yi mooy ñi nga xam ne ñoo ñi gën a ba xam ndax TFM dafa leen bi annoncé benn chose mm-hmm. mu intéressé leen bañ bàyyi seeni soxla pour seetaan ko mm-hmm. mu mu mu mu ñàkk ko teg ba pare te expliqué wu leen dara mm-hmm. ñi technique ñi rien du en tout cas man jusqu'à présent man euh, concerné ko man ñi concerné mooy studio ak téléspectateurs yi mhm. waaw c'est lan la lan la TFM di teg ci loxo téléspectateurs yi mhm. ak Aïssatou Diop comme moom la Bouba Ndour accusé mhm. eh, lan lay wax pour défendre boppam parce en fin de compte en fin de compte affaire bi diggante téléspectateurs yi la ak TFM benn média moo am droit supprimer benn annonce sans mu wax ne lii moo tax mhm. waaw loolu yàpp kii yàpp téléspectateurs yi la waaw je crois que même kii bi sax même organe de de bi sax war na war na ci wax. Sénégal orga waaw war nañ ci wax parce que euh, spectateurs yi du ñuy ñu ñuy foyee rek ne teg nañ ko neexuñu teggi nañu ko amuñ dara leen di expliqué. fekk ñun Sénégal en tout cas réew la moo xam ne pays de droit la kenn amul droit def loolu mhm. te bu la wóoree ne euh, télévision bi bu la annoncé dara mën na caa génn sans que yow nga am benn explication xam nga doo ko seetaan mhm. loolu dafa touché say droit mhm. parce que dafa relever de de de division de fausse nouvelle waaw donc yow ba léegi li nga waxoon si communiqué bi da koy maintenir. ba man ba léegi waaw waaw ba léegi loolu laa maintenir te loolu itam moo génn moo di ne TFM ci làmmiñu responsable des programmes wax na ne du ñoom waaw nee na loolu ci li mu gis mu bind ko ay sëtu Diop moom mooy kii kii yore responsabilité ay sëtu Diop na wax. parce que ñun affaire corruption lañ wax mu nekk corruption passive mu nekk corruption active mhm. corruption passive euh, ki ak euh, passive mooy par exemple mu am benn famille boo xam ne ay studio jege na leen ñooñu ne ko lii neexuñu euh, parce que nangam ak nangam mu bëgg lu neex famille boobu mu censuré dëgg la dëgg la artiste nag mooy ñu jox ko xaalis. Mhm. te ñaari hypothèse yooyu yëpp yaa ngi koy maintenir ba tey. man loolu dama ko bind. dëgg la. man loolu dama ko bind man li ma bind amul dara lu ci avancé bu leen avancé nag damay def communiqué. Mhm. dëgg la léegi nag loolu amul fi mu ne yéen seen liggéey mooy ngeen laaj d'une part euh, Bouba Ndour lu tax expliqué dara ak téléspectateurs yi. escale secteur interspectaires yi bu dee amuñu explication bi ñu jox kooku Bouba Ndour wala Youssou Ndour wala Birane ñoo ko war a répondre mm-hmm. ñun interroger nañ Bouba Ndour ci loolu ci lu tax expliqué wuñ dara téléspectateur xam nga moom amee ne sa expliqué waaw mais na expliqué téléspectateur yi lu tax waxuñ ni lii mu tax wala laa téléspectateur yi ñoo gën a am importance amee ñett parce que ñoo tax ñoom ñu leen jox publicité lu dëgg laajal TFM pourquoi ñu négliger explication jox explication téléspectateur laaj ay satu Diop comme accusé la lu tax waxul lu tax delloowul accusation yi or qui ne dit rien consent voilà loolu merci beaucoup merci beaucoup